Bathio jërëjëfati jërëjëf Serigne Bathio ah, waaw waaw jërëjëf. moom soxna Aida Sane Diouf moo yegg si ci kër gi. yi nga di ko séddale ci daara yi ci prison nga xam ne am na ñu koy teewoo ak fépp rek te ndeysaan Serigne Badio waaw Serigne Badio moo ko wax soxna Aida Saliou yaay gën a gaaw le yaay gën a neex le ku gis li xew fii xam ne loolu fës na waaw barke Serigne Touba yëf yi ni muy doxee kéemaan la àjjuma bu yegg si rek gàcceel bi romb waaw moo tax saa su ne ni lay demee gis ngeen ko berne yi waaw waaw cëy sëñ Badio moo waral jawli soxna Aida Saliou jërëjëfati waaw barke Serigne Badio saa ne noonu lay demee ñu ñëw yegg yegg si fekk gaay na ci liggéey bi waaw lépp di dox ci barkeb Serigne Badio Serigne Badio jërëjëfati